salaamaaleykum salaamaaleykum mbokku internet yi yéen ñi safoo seen télévision nuyu naa leen te di leen jaajëfal te di leen wax lu doy waar moo am fi nga xamante ne mooy commune du pikin ginnaaw raay lii doy na waar trop lii métti na askan bi ndox bi gis ngeen fi mayem dafa wàññeeku nii dèjà te commencé gul lii métti na kon ñu dugg xool askan bi lan la ñuy dund seen biir kër yi ak lan la ñuy dund fi nga xamante ne mooy ginnaaw raay lii métti na autorité yi nañ génn wax ci lii kat dafa jot. maa ngi masawu Pikine même maa ngi masawu baax a baax baax a baax a baax a baax ginnaaw raay tey lii métti na tey lii tiis la tey am na ci mbëri ñoo xam tey jii su seen kër togguñu añ. am nañ ci benn. merci beaucoup kon preuve noonu ñenn ñi seen kawlal la ñuy toggee añ yaa ngi dégg gis nga yëpp ginnaaw raay gi dina mel nii mais depuis ñëwee tunnel bi ñëwee tunnel bi xaw ma teer la ma lan la. yaa ngi bi ñëwee ci la lii. non c'est non c'est-à-dire dafa am loo xam ne dafa gis nga liggéey liggéey xalaat la mais nekkul da ngay liggéey rek ñëw teg rek def dafa am loo xam soo koy def da ngay ñëw laaj population ba pare mais doo ñëw def li nga def ba pare yaa ngi dégg ah ñu am problème yow nga nekk sa kër taawoo amoo ndox amoo dara léegi ñun ñi xam ne ñoo fi dëkk yaa ngi dégg di am problème dem am problème génn. ba pare yab waa ginnaaw raay ngeen baal ma ci kàddu gi daal ñuy tëj fépp ñun amatuñ fu ñuy génnee. tëj bi tëj bi waral lii tëj bi moo waral lii gis nga kalandoo yaa ngi ne amuñu fenn fu ñu dem te monte suñu yaay yaa ngi war a jógee fii dem dina ay marchandises mais mënatuñoo génn mënatuñoo dem fenn mënatuñoo dem fenn tey tëj bi moo waral lii. nga war a xëy war a dépasson ñu ne déeta waaye ngay paas 300 aller 300 retour waaw loolu tamit duñ ci wax. li ñu war a wax dafa bari. parce que man li ñu wax dafa dafa bari. gis nga dañ koy wax te dee ginnaaw raay nawloo wuñ ko ginnaaw raay ñàkk a nawloo moo tax mel nii. te ginnaaw raay ku fi falu moo ba tëj ginnaaw raay tëj ko tëj tëj lépp li naan les 4 point 4 noonu ñu tëj lépp war nañu sóoraal taw bi yaa ngi loolu tey ñàkk xalaat boobu tey ji moom moo indi lii kon nag ndagam nag ñoo xalaat ba ñoo xalaat ba def seen li ñuy def dañuy xalaat ndox mi génn fii nu mu gën a gaawee parce que dañoo am suñu soxla war kaa dox te dañ koy dox yi am suñuy programme mais imagine toi tey kër gi am malaat nu muy génne du dee su ko yàlla dimbaliwul ah kon metti na metti na metti na nañuy def ginnaaw kaay niñ def ginnaaw kaay lañu moom yaa ngi dégg ginnaaw xaay ay mala dëkkuñu fii mala sax mala sax am na buntu kon nañ jox lu ñu moom donc loolu laa amoon lu may wax donc di profité waate di masawu ñëpp di masawu ñëpp di masawu ñëpp rawat na suñu yaay yi nga xam ni wax dëgg yàlla son nañ ndax am na kër yoo am na kër yoo xam ni soo fa duggee togguñu añ wala ñeneen seen kaw lal la ñuy añee maa ngi masawu ñëpp jërë jëf merci